asalaamaaleykum mbokk jullit yi ak mbokk taalibe yi maa ngi nuyoo bu baax di nuyu bu tedd bu am ak tàmbali te amul fu mu yem ak euh, mbokkam yu baax yi di njabootu Sëriñ Tuubaa gi teewe jotaay bi ci leen ziyaara bu baax a di nuyu tamit son excellence ambassadeur Palestine bi ma fi seen di nuyu tamit mbokk yeeg xarit yëpp di nuyu sama xarit bu baax sama mbokku taalibi et médiateur de la République Alioune Badara ak ñi ma xàmmeewul di jéggulu di nuyu ñëpp rek taalibe moom bu ñëwee ci biir mbokki taalibeem bu ci nuyoo ki fi nekkal sëriñ bi nuyu na ñëpp maa ngi jël nuyoo bi gën a tedd bi gën a rafet di ko teg ci loxo njabootuk sëriñ bi mu ma mbokk taalibe yëpp di ndokkeel nag suñu sëriñ suñu wëllëre suñu xarit suñu mbokkum taalibe Cheikh Mouhamadou Kara Noreyni Mbacké di ko ndokkeel ci li nga xam ni lenn la rekk lu muy bëgg a wone wala lu muy jéem wone ci bëgg gi mu bëgg sëriñ Touba bu ci bindoon junniy téere ñaari junniy téere ku mel ni man ci gannaaw loolu nag bu amee ku baax sax di ko wax lu ko neex jaadu waaye bëgg lu ko neex it taxul ma di ko wax dama koy seere te yàlla tax ak Serigne Touba ndax ñun seel ñun xamuñu kenn ku dul sëriñ bi wax nag boo ko waxee yow la engagé interprétation bi ñu koy interprété ñoom la engagé waaye ñun kenn lañu xam moom la ñuy wóolu moom la ñu yaakaar ndimbalam fii ak fële muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yàlla yàgg na feek ñun yàgg feek suñuy bàyyi ak suñuy ndey yàgg feek suñuy maam waaye nii mu ñu def moom rek a ñu ñu def kon benn référence la ñuy am muy Cheikhul Xaadim Xaadimu Rasuul yow nag nii nga ci mel li ngay wax comprendre luñ la ah kañ am na ñu la comprendre waaye jópp du la comprendre ndax fa nga nekk egg fa moo jafe sëriñ bi dañ koy tudde sëriñ bi ndax vocable boobu mooy vocable bi nga xam ni moom lañuy gën di utiliser pour mën na xëy na màggal nit ci wàll suñu borom ndax bu jëkk dañ daan wax diw yonent la ñuy wax diw waliyu la te kenn daawul wax waliyu diw waaye ku màgg am cër ci yàlla ñu tudde la sëriñ bi moo tax ñuy wax sëriñ bi sëriñ bi waaye moom nekkul foofu sëñ Tuubaa yooyu ma fi lim yëpp ëpp na ko ñàkk koo xam nag mooy umpale kàttanuk yàlla ndax yàlla mooy yor dogal yi moo koy def te bu ñu xamoon lépp yàlla yàlla noppi doon yàlla bu nit xamoon lépp yàlla